ndax nekkul ne kum waaye neex rek nga jàpp ne élection ngi jublu si loo laaj ñu jox la rek ngay laaj di laaj di laaj loolu tegul fenn ndax am na ay études yu ñu defoon ci njëgu li nga xam ne moom mooy ceebu vallée bi ba nga xam ne am na ay prix yu ñu gisoon yoo xam ne moom mooy prix boo xam ne bu ko borom ceeb bi jaayee du perte te it du lor kenn kon loolu prix yooyu xaaju la yegg ñoom fi ñuy wax ne foofu la prix yi war a nekk kooku mooy benn ñaareel ba état moo war a jël responsabilité ndax nag état moom moo gérer li nga xamante ne mooy li ñuy wax les prix administrés maanaam prix yi nga xam ne dañ leen di fixer pour loolu état dafa war a xayma ne kii baykat nangam la ciy def nangam la ci war a am loo xam ne moo jaadu te du lor kenn léegi nag bu déterminer loolu ba pare ñu ne itam ki nga xam ne moo koy bojj nangam la ci war a am ki nga xam ne moo koy jaay nangam la ci war am suñ définiré loolu yëpp bu ko defee dinañ ne kon consommateur bi nangam lañ ko war a jaayee ceeb bi mais li daan am boobu ba léegi mooy ne état da daan wax rek euh, producteur bi nangam la war a jaayee ci buntu toolam bi ci des mu seetaan ñu nag euh, wax nañ ci ba état sax boo xoolee ci soble bi bi baax joxe na prix bi nga xam ne mooy prix bi ñu ko war a jaayee itam consommateur bi dañ bëgg na état def rapidement loolu ci ceeb bi xayma li nga xam ne moom lay dikk ki nga xam ne mooy baykat bi am na sax ay xayma yu ñu defoon mais yu même banque mondiale defoon mais li gëna am solo mooy ñu génnee prix boo xam ne mooy prix bi muy dikk ki nga xam ne mooy baykat bi ak ñaata la ko war a jaayee ba tax du loru te du lor kenn ñu jàpp tamit prix yi nga xamante ne bi mooy ñiy dox ci diggante bi ba mu yegsi ci consommateur bi moo xam bojjkat bi moo xam jaaykat bi su ko defee rek yépp jàmm dina ne ñooy mais lii nga xam ne moom moo bëgg a am nii ñun duñ ko nangu te dañuy wax état bu mu ko nangu parce que état tam warul toog di seetaan lu waay neex ne moom ngay def du sotti même bu ñu nekkee ci ay période ne entrée élection moo war a jugg si wala déet kenn ku nekk itam da ngaa war a respecter li nga xam ne moom la la euh, sax euh, sa sa sa diina may ndax ku nekkul musulman nekk chrétien itam yi diine yëpp dafa am lu ñu digle donc euh, yaakaar nañ ne daal il faut que état bi jël responsabilité xayma li nga xamante ne bi moom mooy structure des prix bi maanaam njëg ñaata lay dikk ak ñaata lañ ko war a jaayee su ko defee euh, ñoom duñ gaañu mais duñ gaañ consommateur yi beneen bir tamit mooy ne dañuy gis euh, dañuy joytu ne seen produit yi jarul ba tax nguur gi tëj frontière yi ñoo xam ne sam ñun sax ñu dañ ciy d' accord pour que ñoom la ñuy bay mu jar bu ko defee buñ jarlee ba jeexal ñu doog a ubbiwaat frontière yi pour bañ a dugal importation bi mais léegi-léeg dañuy teel a yuuxoo yuuxu yuuxu sonal nit ñi ba tax euh, ñu tej frontière yi te fekk na ñoom moment bi ñuy tej sax fekk na ñoom seen production bi pareegul pour mën a euh, dugg ci marché bi lu doy ba tax euh, consommateurs yi jotti mm-hmm. bu ko defee dañuy tëj ba pare nga gis euh, prix yi di yéeg ndax produit bi di ko gis. day manqué mm-hmm. ñun tam d'accord ñi tamit ki nga xam ne mooy producteur bi ñu koy protéger ba pare te protéger boobu itam amul benn njëriñ ci consommateur bi. Mm-hmm. dañ jàpp ne suñuy protéger suñ dëkk. pour mu am njëriñ ci producteur bi la am njëriñ ci consommateur kon jàpp nañ ne buñ demee ba di war a tëj ay frontières rek yooyu prix yi ñuy def mu nekk prix yoo xam ne euh, béykat bi dina ci gis boppam consommateur bi gis na gis ci boppam mais très souvent produit yi bu ñëwee béykat bi dina ci gis boppam waaye consommateur bi vraiment njëg yi dafay seer ba kenn du ci laal day mel ni dañ koy laxas dañ ciy laxas jaar. d'accord comme bu ñu dégloo bu baax ñoom prétexte bi mooy prétexte baykat yi mooy élection bi mais du prix bi arrangé wu leen mais dañ bëgg a profité ci campagne bi. waaw parce que am na étude boo xam ne wane war na ne euh, ceebu mbay mi war na jar sax ay lu jëm ji wër ji cent franc jëm kaw cent franc cent dix cent quinze wala quatre vingt dix sax am na sax euh, étude boo xam ne génne woon na loo xam ne matul cent franc. kon li am ba am moy dañu wara def def ben euh eh, étude bo xamné day wax ñaata lañu wara jaayé jaayee ceeb bi nga xamné ki pay du ci gañu té itam du lor ki mi jaay ndax bu fekkente ni bi da ngay jaay foog ne da ngaa gën fokk foqale ñëpp rek du sotti kenn ku ne da ngaa wara set li nga xamné moy tax sa liggéey dox nga def ko sans pour autant ka nga lor keneen d'accord euh, li ñu bëgg teg si njëg bi njëg bi fi mu nii ñaata la. bon am na ñu wax ne jë bëgg nañ ko jëlee affaire bi cent trente yóbbu ko cent trente cinq. Mm-hmm. mais daal sa waa am na daal cinq franc daal wala dix franc daal ñu ngi jéem a wax daal ay prix yu ñu ci bëgg a def. mais loolu mooy njëg bi mooy mooy bi nga xam ni moom lañ jàpp ne moom la kii nga xam ne moom mooy baykat bi war a jaayee. Mm-hmm. su koy jaay nag da koy jaay koo xam ne. kooku da koy bojji su ko bojjee ñu doo ko mën a jaay commerçant bi mu jaay ko consommateur bi mais bu fekkee ne euh, njëg gi am na foo xam ne dafa tagatémbe su fekkee ne ci diggante bi lii nga xam ne moom lañ bokkoon bariwul mun na indi euh, répercussion loolu moo tax. parce que ñoom chaîne boobu ku nekk dañ ciy. dañ ciy teg dara mais ce n'est pas parce que kii teg na dërëm que man danaa teg dërëm wala ñaar dërëm. Mm-hmm. parce que bu boobaa euh, il faut ñu xool. ndax prix yi nga xam ne kooku moom la doon def prix yu jaadu la wala prix yu jaaduwul su fekkee prix yu jaadu la jaadu na mu teg dara mm. mais su fekkoon ne prix yi ëppoon na la nga xam ne moom la waroon a teg kon bu boobaa soxlawul muy teg dara donc loolu yëpp xayma bi nga xam ne moom laay wax ne moom la état bi war a def te ministère du commerce war koo dox mm. mooy ñu xam exactement li nga xam ne mooy structure des prix bi su ko defee képp koo xam ne yaa ngi jaay loo xam ne ëpp na loolu ñu ne li ngay jaay ëpp na d'accord fu mu nekk ceebu mbay bi ñaata yi. dafay changer am na yoo xam ne amul prix bu fixe daal maanaam daal ni ma la ko mën a waxee am na yoo xam ne ñu ngi wax ay juróom fukk ak ñaar am na yoo xam ne juróom fukk ak juróom benn ça dépend daal amul. amul prix boo xam ne parce que léegi nag li nga xam ne moo ci gën a am solo mooy état bi fixer ay prix yoo xam ne mooy prix yi nga xam ne kenn du ko dépasser. mooy xëy ñëpp war a war waaw mais est-ce que yaakaaroon ni état bi bu leen ko accordé ba ñoom ñu yokk prix yi est-ce que tamit prix riz importé bi tamit du yokk waaw xam nga euh, riz importé bi euh, li nga xam ne moom mooy njëg yi euh, ci riz de la vallée ndax dafa ëpp trop moo gën a bari li ñuy li ñuy bay fii ci réew mi kon du li ñuy bay fii ci réew mi mooy déterminer prix ndax ñoom li ñuy jëndee ak li ñuy jaayee am na yeneen xayma yu koy def yoo xam ni mooy xayma yi nga xamante ne bi moom mooy déterminer prix bi nga xam ne prix mbay bi prix ceeb bi li gën am solo daal mooy euh, ñu xam ne mbay bi am na jafe-jafe ñu ne pour jaay ko du loolu lañu wax parce que consommateurs yi euh, mënuñ ko togg ñu ci bari ndax te fekkee ne bi donj yi dafa tolloowul bu amee bu sew am bu dijj bu sew bi bu ñoree bu dijj bi day tas mm-hmm. bu bu bu bu dijj bi bu fekkee ne dafa ñor rek yem ci bu sew bi du ñor mm-hmm. kon ñàkk euh, tolloo yi nga xam ne doñ yi am na ay ay pepp yoo xam ne wuñ ko bu ko defee dina économiser ci diwlin bi bokk na ci li tax ñu bari ñu ngi ñoo xam ne sax ñu néew doole lañ ñu ngi jënd ceebu parfumé parce que ci dépense bi day wàññi diwlin yi nga xam ne moom ngay jënd mm-hmm. tandis que bu fekkee ceebu valet bi nga jënd